sëñ Touba ci boppam moom magoon Cheikh Sidi yi ngeen di wax juróom benn ak sëñ Touba ma ngeen ko Cheikh kon du kun yóbbuwul ci moom ngir mu di ko traité ba ca topp sëñ Touba jëng si wutoon gannaaw yoonu mu jëkk ba ci ginnaaw baayam lan moo xew ñëw na natt Cheikh bàmmeelu Cheikh Sidi mu mag ma sëñ Touba aw yat la ko natte woon am na lu xew am na lu mu doon doon lu andi loolu dañuy xool histoire boobu ñu di ko nattee sëñ Touba bu doon jàng ginnaaw baayam nan la téere taalifee téere baayam di ko bàyyam dem ne wàcc muy door a jàngi arab te defe naa mu lay nu sudur ñoom ñii nga xam ne ci dex si la ko tarif ci gànnaar ak yooyu bi lay fi hidaaya nee na bi ma koy am booba dégg bu ma arab bu baax ko ay suñ mor sëri naar yooyu ñoo dem ba yàgg ñu jàkkaarloo suñ jëwa ne ko afa yaxilu lakka zulmul arab yi mu Ahmadou Bamba ndax da tooñ arab yi léegi ci jël seen tab bi jël seen xam-xam bi loolu lan lay tegtale mooy ñu egg ci ne fardun وليس له نظير في السماء وكتب تقى وعباد الرحمن ناري نيرن لون من دكا ووتا مورم اي سن تيبا دم امول ند سي راغال يالا اك خام خام اك جامو بروم دول ناري يكو سيرال سين سين بوب سي سي بي كاي دوينا سير ليم خيي ناري بن بودي بن بيس بو لين خيي نين نيو موخ لين ايبي ناري يكو جو ياتام دا سن تيبا جومن لين ياخال لين كين كولي ميغي ndax daa am lu muy wane ci bëccëg gi te bokkul guddi gi te xaar ayib gi ba ñu ñëwee seex si dee na leen wa maa aybuhu illaa ibaadatu rabbihi wa naqbu rabbi subhi wa masar amul jenn ayib bu doon am na ayib daal ayib ba mooy jaamu yàlla ak jëriñ mbindeef ci suba yi ak ci ngoon te Siriya moom mi nga xam dafa garanté woon Sëñ Tuba wax ne man aw lor du bàyyi ko ci moom wóor na ma egg na ci ne Sëñ Tuba mii fa rusul law lam takun bil Mustafa xutimat

loolu bu fekkoon ne dañ ne la sëñ Tuubaa juróom ñaar fukki at ak juróom la dund mës tiim Moustapha dox sëñ Bachir Mbacké nee na bi muy fanaanee naafile amagul juróom-ñaari at dalagul jàng sëñ Bachir na xoolal gi gàm nga wu rafet te la dégg mu naan min yi ñaamu ñu leen daan naawee taxaw guddi bu guddi na temm ci kon doyal na ci yàlla juróom-ñaar ba teg juróom yu dund mosu cee tiim mosu cee faa dox mosu cee juyoo boromam sëñ Maxtar Penda Jeg nee na ci na am na bis ci gànnaar te xoolal mag ñi seen pas-pas fi ne sëñ Maxtaar Penda doom la doom benn doom bu jigéen la moo jur seen Cheikh Fan Mbawar loolu seen Cheikh ma ko nekk leen boppam fii ci këram gii sëñ Maxtaar la am bu mooy way jur wu sëñ Maxtaar sëñ Cheikh Fan ko waral daa ñëw toog toogandoo sëñ Tuubaa ci kër gu sedd buy sëñ bi ne fii de ak a neexoon doom joo am gas ko suul maanaam doon doon suul doom ju juddu suul mu ne ko tippoo naa ko ah féete woo naa loolu comme am na dem xoolal loolu Penda bu ma saa toog ci sëñ Tuuba bu ñu indilee sëñ Tuuba aw naaru góor bu ne bu sëñ bi ne daa xonk ba mu duggin nga ko cooy wéy daa ñuul mu ne mu ne tàll ñu ne ko Maxtaar Penda yow fi nga toog jógoo fi ba noppi sëñ bi bu ne xong nga ne cooy mu ne ko ginnaaw nee na xong rek xong lay doon moom du tudd xong nee na xong xong سيد مختار مومو خولال ناجي ليمكو جورو ناجي موي نار بوبو توبا بي نيهالون باركو جوخ جورو فك جوني ديرامي نغورلو جوخو جيسي كوب كوب نكو فخيل با بيت شيخ سيرنج بي نغا دوك بوب اواس كو نيار فك جوني اك جورو ناجي خامني بو نيوي دال سي كو سيرنج بي رك ام بروبليم مو نيو جيبو مانا بور بوغ كولتا بي مو سيب استراتيجي واي كين دو سيرنج mam jébbuloo rek sëñ Tuubaa rabbil ilaasi wa yadurruka sheytaan maa lahu alayya min sultaan ba ci allahu qilli wa hibbi aba abada allahu qilli wa hibbi abada wa raama min rabbil wara masarati donc ko na ko déggu yëkkati te kaw te jàng soor biyaasi sëñ bi nee na lan laa ci jublu waaye li muy pexe bu ko dee pexe jëm si ko ci man li aar ko ba du loru xola loolu saa yu jógee ngir bëgg maa coup d'état yàlla sàmm ko moom ba du loru xam sa noonu bu lay pexeel naaj yi moomu nag sëñ bi bi mu xamee ne bëgg na pexeem daa benn ab xayma guddi la simmee ku ko set yor jeeseen daw song sëñ Tuubaa te kenn nekkul ci xayma bi pour bi mu tuuree jeesi ji buumi xayma bi moo téye loxo bi fekk ngi nañ daan nafila guddi ñu yëg am na lu xew ñu ne am na ku jëm ci sëñ ñu daw song buñ ko daaneele sëñ bi génnal boppam laa taqatuhu laa taqatuhu bu leen ko rey bu leen ko rey ko ci biir yëkkati ñaar fukki junni ak juróom motti li lim ko ñaar fukki juróom lañ ko avance par contre sa koom réussir sëñ Tuubaa leen ko ci ñaar fukk ak juróom ngir mu mot bu na mag ñi nag na ma ko yóbbu ba ca poste ba muy xumaat waaye bu ko ab loxo laal bu ko loxo laal bañ génnee sëñ Maxtar Penda nag ginnaaw loxo la wax defe naa kii ku am ay yar dana baax ci moom ginnaaw sëñ mu nit mu war a mel ci xam dàkk bëggu sëñ bi li mu li muy jëriñ bañ génnee sëñ Maxtar wuti yar laal naa ji ba yaram yépp doy waar mag ñi ñëw na da nga ne woon bu ko kenn laal mais Makhtar xaw na koo suñ sëñ Makhtar fenn jóg na ko da nga ne woon bu ko loxo laal ma sama loxo laalu waaye xoolal li ko jural sëñ bi ko foofu de yàgg suñu borom yéen a ci bokk yam ndax nungu wul ko jëm ci sama ji. suñu borom nungu wul ko jëm sama jëmm ji xoolal li mu jural ab taalibe ko nee pas sëñ Cheikh Awa Balla na sotti la sëñ bi muy jàpp ci njéeréem mu di ko sotti di xool tuutaay bi rek ni sëñ bi tuutee jëmm ji tuuti sëñ Cheikh Awa Balla nee na mu di ko xool muy jàpp la yàgg suñ cheikh di wax sama xel si sëñ bi ne ni mu tuutee ni bi mën a ko delloo si ko te loruñu ne bi ne ashhadu an ilaha illa allah na ma cheikh xanaa tuutaayu jëmm ji lay yëm man ah man ah tuutaayu mu ne ma nasaraan man dara borom ñu ci dara. ñooñu pas-pas bin amoon ak dogu gi amoon seen diggante Serigne Touba loolu moo leen mayal lépp luñ mës bëgg ñu ko ko ko xam-xam yu rëy yi nekkoon si ñoom cëri yàlla yi newoon ci moom ñu jaay bu lépp ak teel bi des ko moderne ab murit bi doon muritub internet ak muritub événement ak muritub réseaux sociaux li coowandoo ko esthétique ka ñàngal ab murit day jëf gis nga ku mu wóor ne teg nga sa tànk bu dëgër ci jëmal seen Tuubaa ak gëm ko wallahi bu la adduna bépp diiree bu ñu la jam waaye koo xam ne ci kaw nga nekk ni di pala pala rek waxuma la kenn di la diir mais ngelaw dong nga dal sëñ Tuubaa nee na kenn di ànd ak man fëkk di ko yóbbu ci sëñ Tuubaa nga nekkoon say morom raw la amul sëñ Tuubaa tax say bokk jël la sëñ Tuubaa ne ku ne fi man bu la say bokk xëyee rom mit boo gontee raw li nekkal sëñ Tuubaa mu du taxaan mag ñi mosuñoo denc dara lu sëñ Tuubaa mës a bëgg waaw lañ ci xam sëñ Tuubaa déet Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine lu ko taxaraw sëñ Tuubaa nee na Ibra Fall ko taxaraw déet mës génn ci làmmiñam tàbbi sama nopp moo ne ànd na sëñ Mourou Moustapha Fall doomam ñëw si sëñ Touba sëñ Touba ne Cheikh Mourou Moustapha Fall wutal ma mbaar am mbaar si ci kër Cheikh yi ba jóg ndànk dem dem dem dem rocceeku. Cheikh Ibrahima Fall dem rocceeku nan la def bi mu rocci ko wut ay bagaasam defar mbaar bi mu ko wàccee ci kër gi sëñ bi dégg yëngu mu ne kooku la ñu ne Ibrahima Fall de mooy defar si mbaar mu ne ko waxuma ko de Mourou Moustapha Fall laa Cheikh la lu mu wax bu dee ku am doom bu dox sa digganteeg liggéey sëriñ Tuubaa de kon bu ma yëgoon du am doom menn mbaar mënu ko muñal Cheikh Modou Moustapha Fall moo tax Cheikh Abdoul Khoudous moom borom dër daa ne murit bu nekk ndigal lu bees lu bees lu ñëw jàpp ne ci la faju aajo tero fi la xool la nga daan dem xel koo la daan woor ak la nga daan liggéey léegi xam nga looy yeesalaat da ngay am pas-pasu la ndeke kat mbaarum fulku mii ak jàkk jii ñu woote te sëñ waxtaan nag man xaw ma jëkk woy nungu na wala nungu waaye nag ne projet bu bees bii moom moo war a dimbale ndax diggante bi li ma fi def ci lu jaadul ak li ma fi wax kon fii laa war a tàmbalee ngir am lu baax murit bu ne noonu ngay def ndigal lu ñëw lu ne da jàpp ne loola ci la sa faju faju nekk feeg yi koo foofu nag doo aw yiw ak yoon ba jàpp ne yegg na fi ne ñu bari li leen tax a tàyyeel dañoo jàpp ne yegg yëg te yegg gun yegg yómbu yegg yómbu murit waxtu wu ne fekk ñoo xam gi mi ngi yëngu da war a wërta jéem a wàcc wërta jéem a noppalu wërta jéem a moom boppam wërta bëgg dara lu mooy lii bëgg-bëggu sëriñ bi rek te boo ko dee def sëriñ bi li tax mu neex a liggéeyal mooy loo am moom loo am rek moom lii gaa ñi bañ a def naan boo nee sëñ bi lépp naan dam ñu ne la yàlla wala amul malaaka mu ñu tuddee Mikaayil malaaka mu tudd Mikaayil amul Mikaayil Mikaayil luy liggéeyam Mikaayil mooy taw Mikaayil mooy a taw waaw innama amruhu yàlla mënutoon rek bu xiin jotee mu ne xiinal bu taw jotee mu ne taw lu tax mu tànn malaaka mu tudd Mikaayil lu tax mu tànn ku tudd Jibriilu lu tax mu tànn lu tax mu tànn ñu bëree bëri ñooñu mu tànn moo ne Sëñ Tuubaa ñaanal nit mu seex wala Sëñ Tuubaa ñaanal nit mu am barke xanaa moo gën a yóbbu def nit ab yonent pourtant dugalal nit ñi demande ba yàlla accepté ko mu doon ab yonent xanaa yonent yàlla xaaru la xanaa jàng suuratul qasas wa axi haaruna waasbir minni lisaanan farsil ma'iya alladhi yusaddiquni inni axaafu an yukadibuni Seydina Moussa dafa totom tamit wul fasaxaab mën a joxe mission bi mën a yónni mu ne yàlla boole ma sama waa ji yónni ko moom mu Haaruna ngir damay bañ ñu weddi ma kon ñaanu gu nangug Moussa moo waral nekk Haaruna ab yonent yàlla yàlla yii ñuy wax ñuy wax ñëpp loo wax ñaan alkitab wa sunna dañuy coow rek dañuy coow rek l'islam dong dong dong dong dong dong ju set li ci ne ci yow jërul bañ kenn jërul xeex jërul na te wallahi azim képp ku maa ngi dund lislaam maa ngi dund sunna maa ngi jaamu yàlla wan ginnaaw sëñ Tuubaa ak ni muy doxe waxoo dëkk am naa féq dong nga am naa féq rek ndax ba du seen nga yaram yaram ngi di sa soxna dem ca marché ba jënd jën andi te xamoo mool ba te ba muy ne ci géej gi xuus ci guddi gi ak naf ba andi ko fi yow nga ne ko mos xàmmee woo woon loolu te sa soxnaa ko wuti kon nag boo nee lu ma téere téere bi lu mu la wax yow alxuraan dafa daje jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadis yi ñaata hadis ñoo da ngay dégg léegi saxiixu muslim ak saxiixu buxaari al buxaari dañuy saxaabi wala muslim dañuy saxaabi lu tax kon ñoom lu ñu wax nga ne dëgg la fekk naa ko saxiixu muslim ak saxiixu buxaari léegi ñoom lu ñu waxul wér te lu ñuy saxaaba dañ koo dajale te mustalahaat yi boo ko jàngee loo ci fekk hadiis bi wér na bi wéru bii daxaj bi nanga bi nanga bi nanga ñee settee lee na loolu wér na pour ñu bañ a convaincre nii lay bëgg a fàtt ci naan ay islam islam islamique financement képp la loolu xam ngeen ne bëgg a taxawal daara jàkka néegub yàlla bëgg a taxawal mbaarum ful bu ron yeneen gars yi wuti nañ maquette boobu yàgg wut financement yi ngir ku leen financé waaye tax booy defal yàlla da ngay xam ne ngay defale yàlla mooy yàlla ma taxawoo te toog di déglu te doo def lu may romb fi ah moo ne gars yi seen yëf yi yegg de te yàlla kese leen benn liggéey bu ma sa sotti ci kër sëñ boo dégg ñuy remercier ñoo ngi sant réew sàngam mu bàyyi ko nangam wala financement nangam amul ñetti murid yi seen ñaar dërëm seen téeméer seen fukki dërëm maanaam ban ban nitu lislaam nga xam tàmbalee ko ca Makka ak Madina ban nitu lislaam nga xam koo xam ne ñooñam dajale nañ tey trois cent treize millions jibal ko maanaam tey tey bisu tey bii kan ngeen dégg ci lislaam internet bi moom fees na dell ñu ne am na benn kuréel boo xam ne xes bu tarxiya la dul taalibe yi sëñ Tuubaa lañu dajale nañ trois cent treize millions jébal ko ku fi nekk sëñ Tuubaa ku fi toogal lislaam comme loolu teewul am ñu ku fi toogal l'islam ku am lu mel noonu koo ko mën a déggee sëñ Tuubaa lim ne barakatul islam yi nag yu aqbalat wa man xalaw nii fi baraya xadilat barke l'islam dégmal na ma kon lu mu dal maanaam ànd gi ànd sëñ Tuubaa kuy daw di geestu doo sori man ne bala maa kontaan ma man gànn saa yu ma doon xool nii ak internet ba gis kuy kuy kuy kuy commentaire ba saaga ma damay yuutuwaat am ndox naan kontaan xam nga lu may a kontaan damay yëg ne coup bi ma la daal bi ma la dóor yow daal ma déglu ma dégg te ci biir déglu gi la neex ak lu rek bu wax nga bu wax na rek kontaan ma di la ko nga di ko yëg ma di la ko nga di ko yëg ndax baag bi ngay bañ a dégg sëñ bee fi man sëñ bee fi raw loolu rek ngay dégg waxtu ne boo noppee nag aw saaga dong nga ci mën a teg ma ne la jërëjëf waaye dégg ko ko rek léegi nag mu lay travaillé mu nekk sa bopp nag des ci nag di travaillé di travaillé démb barki démb bi ñu demee ci gànnaar gis nga kooku ñëw nee na ma man ab ibadullah sama bopp yëpp gëmunu sëñ Touba mais yaa ma tax a dugg ci sëñ Touba nekk ci marine nationale ci géej gi la jógee fekk ma fi ma nekk vidéo yaa ngi nit na ma yow laa déglu ba tàbbi ci loolu ana ñi nekkoon tey Maroc ay Mouhamed Dagna nga xam ne mosuloo xam luy lislaam ay chrétien lañ seen tubaab nee na ji moo leen tàppal kon bul xeeb te gis nga nit du ñàkk fay oto bii benn waaye ma ko jox am na bu ma gaaree sa kër ga boo xam ne ñeent fukki junni lay def pour ma dem Dakar wër ñu jox moom yow ñu di la ran bëgg laa jox addiye ay garde di la xaar ngir kenn du si ci yow te amee woo bu ci lu may sëñ Tuubaa nekk ngay faale pour saagaat ku la xas xanaa loolu am ñàkk jom la ah càgguwaay wax amul wut yi sëñ Tuba boo nekkee moom lim lay defal fii la koy tàmbale xam ngeen lii ma leen wax ngaayee ngi ni tey mu ne si tudd lenn ni sëñ Tuba ci xasaay yi wala naa nga tudd ñu ci ngaay dañuy tudd bisi xasida di wax ne bokk na ci bis yi gën a ëpp ci ci yoonu murit ma ne ba ngeen tàmbalee loolu ngeen déggoo leen ko woon ñu kan nag dañoo dooj ak li ñuy wooteeg dañoo bëgg adduna ñor di keex lool la daal ku fi départ loolu lañ lay wax ku fi départ loolu lañ def léegi nag fi daje xam ngeen ne am na ñoo xam ne mën naa am ñu génn dem tukki wala ñu dem fenn xéewal li day baawal naa léegi ku wax na joxe na fi. si moom ah maa ngi jégalu de man damaa ñëw ci liggéey bi ma jaañ nañ ma laalal fekkaal léegi nuyu nag jaayante te fas li jëm ci lii rek nag ku ne fas li nga bëgg seet. wallahi am na béréb yi sëñ Tuubaa xam ne bañ fa taxawee na nañ ko jaayante ba ko jaayee jaayante xam naa ñu joxe woon moo bañ ko joxee de néegi seng ci lañ dëkkoon te léegi terrasse bi na si ñëpp def na am ñu dem laaj ñee ñëpp fas ci kenn ku ne ku man tonu ciment ku man tonu fer bëri go fer lépp man maa maa ko waxal sama loolu moo wata loolu teg nañ xeer yi doo ñëw di seetaan man ciment dañoo bind rek. ku ah, man ciment bind a joxe tonne neel demal joxe naa tonne ciment ku mën a joxe bëri ko fer neel bind naa joxe bëri ko fer. sëñ Xaadim Thiam. ah. waaw sëñ Xaadim gis nga sëñ Xaadim ñaari junni la jox nee na yee la bëgg a jox yee la bëgg a gis sëñ Xaadim Thiam. jëwriñ sëñ Xaadim a ngi noonu acco kon nag nan jaayante. man daanaka lii rek laa bëgg a wax man bu ko defee man ñi ma def bàyyi jaayante ko tey nag. jëf ji moom moo am solo rikiwaay bu ko jëwri di waññee na ne nangami ton la de bàyyi bàyyi Mouhamadou Mamoun da nga xool ba bu ñu waxee ñu ne nangami ton la nga xam ne ñàkk teel yi bii tàmbali dajal ñoo koy tàmbalee waaw. waaw. waaw. ñëw leen kon ci loolu. moom daal na ku ne fas li nga bëgg rek fas leen ci rek te joxe jafe-jafe yi bari na jamono ji dëgër na nit ñi métti fas leen ci jërëjëf fas leen yi noo ngi woon fii tey ci ngaay seen mbokk Modou Makhtar Diop ci wàllu présentation bi ñu àndoon ak Serigne Gana Messere Ba. ana nii laaj fee ñu ngi ñëw dañ ko dañ la dañ ci fas rek ndax képp Cheikh Mamadou Makhtar mii Cheikh Mamadou Bachir yi Cheikh Moustapha mooy way juróom si Amadou Bachir way juróom te ku la woo ah, eh, ci liggéeyal Serigne Touba kat na la dimbale kon bu kenn naw bu kenn xeet lu way am na ko na ko joxe ñu tàmbali lii rek ginnaaw man damaa damaa ñëw ngir yalwaan loolu rek ndax dañoo ne ci liggéey bi tàmbali ci liggéey bi loolu kenn ku ne fas bi fi ne ki joxe ñaar fukk ñaar fukk yooyu man naa doon ceeb bi joo xam ne mën naa ubbi xéewalam ba bu ëllëgee mën a joxe dix tonnes waaye na ko fas rek tam nekk lu wér ci moom dañ ci fas muy góor muy jigéen ñépp ñëpp jaayante ñu joxe ko noo ngi gërëm euh, kilifa yi bu baax sëñ ma jaaj noo ngi leen di sant ndax li am solo mooy am pas-pas ak pas yëpp taalibe yi kenn moomu leen sëñ Tuubaa rek a leen moom ku yàlla dogal nag saw doxiin ak sa jëf rafet ba lu ñuy defal sëñ Tuubaa xemmeem la yow xam ne ne sëñ bi nangoo na la alhamdulilahi rabbil alamin léegi rek laa koy wax ngërëm du caaxaan nit bu ko kilifaam gërëmee yaakaaram gërëm ko lu aw ñaas lay doon day gën a feeñ waaye du nëpp loolu nag du ay caaxaan kon liggéey bi yàlla ngeen ko liggéey ba mu sotti ni ngeen ko bëggee ñu dajewaat fii wax ne tey jii de mooy bisu immigration bi ñëpp daje fi ñu ñaanalaat Cheikh Mamadou Makhtar mi mu yàgg fi lool saa dëgg suñu borom gën a dotti euh, ay xéewal ci réew mi kon li mooy am solo bi nga xam ne toppoon nañ leen fii ci ngaay kon loolu am solo la si Fapaloo noo koy sant bu baax moom koy noo koy gërëm di gërëm mbokk yëpp di leen jéggalu nag ci soññe bii moom euh, daa nekk loo xam ne day day day dimbale ñëpp am na ci mag ñu ko daan wax ne koo soññi ba mu joxe addiya dimbale nga ko ndax am na yoonu addiya it am nga ca yoon te kat nit mën naa ñëw yor ab téeméer wala ñaar téeméer rek danaa ko delloo fekk ñaar téeméer yooyu mooy ubbi si caabi ndax da ko joxee sëñ Tuubaa lañ ko tàmbalee ma ne samp ga ak dox ga mën na caa juróole sa sampum bi moo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla sotti te yàlla gaaw kenn ku ñu def ci sa yitte ñu taxawal ko Cheikh Mamadou Makhtar jërëjëf jërëjëf Mbacké taxawaay bi rafet na melokaan bi mat na kon noo ngi leen di jaajëfal jërëjëf Cheikh Abdou Samad Mbacké noo ngi lay sant yow bu baax Mbacké taxawaay bi ak wane wane wane pësiyet bi ak wane taali bi ak topp ci ginnaaw su kilifa bu baax bii loolu wane na aw yoon ndax ki war a jiitu bu jiitoo ka ca war a topp topp te day mën a jàngal lépp mën a defaral lépp te sëñ Tuubaa lim ñaan suñu borom yaa rabbi ij'alil muridiina maa te xes naka la xaasiir wa chef lañ ma am te mbooloo murid yi bu mu mbooloo luñ bëgg a def mën nañ ko la sëñ mu taxaw waxoon daal bu mu laal suuf waaye liggéey bi it bu mu laal suuf dañ ci taxaw rek def ci muy yitte lu way man lu way xam lu way am def ci sëñ Tuubaa nga koy lebal te sëñ Tuubaa moom ku ko lebal da nga xam ne moom ñu dàq fay sëñ bee leen di wax ni ñuy fay waxuma sëñ bee leen dàq fay waaye ñu dàq fay sëñ bee leen wax ni ñuy fay maanaam sëñ bee leen jàngal aw fay gis na ko ku nuy dawal yi wata di ko jox mbaam la jébbaloon sëñ Tuubaa maamam daa kallu pepp ñuy bay di ko jox aw juróom am na ñu ko nuyu sëñ Tuubaa ñuy takki million di leen jox kon nekkal sëriñ Tuubaa rek mooy li am solo kon maa ngi leen di balwaax na ngeen ma jéggal euh, bal naa leen sëñ ba jaaj mi xam na ne dañu jëm ci béréb bu sori waaye lii de suñu yittee bàyyi maamul ba taalibe kon alhamdulilah ah ñaari kon ñëw na waaw ah, léegi kay noonu baax na moo gën nu toog nii rek euh, ñaari ton mën naa tam mën na fuweete tuuti dara dara tàmbali kon jërë ngeen jëf ku ci jëf yàlla na yàlla def monsieur Thiam yi xéewal d'accord bii ñu génne crise bii ñu génne lii yàlla day Thiam yi naataange joo xam ne looy amoon lu la lu la rëcc wala lu la jafe yàlla na ko seen ubbee gi nga xam ne mooy fulkul machon fulkul machon day xaside bu doy waar ci lu wóor a mooy béréb bu mu nekk juróom-ñaar fukki kilomètre yu ko wër kenn du fa faatu dem sabar proclamation xasida bu doy waar proclamation béréb bu yi ko wër kenn du dafa yéeme proclamation waxuma ne di ko jàng waaye am proclamation rek mu ne fi béréb di ko pomp ñi ko def ci seen i kër xam nañ pour que mu nekk ci kër lan lay lan lay jëriñ te sëñ bi laa doon wax ne bara ami moo gën juróom fukki ponk ak ñaar ci bara ami moo gën fukki ponk ak ñaar ci kër. xaside xaside ngëm wenn arafu sëñ li ma sëñ Modou Kara nooree di wax naan ma xaside jàng xaside lëm ngir yitte ëpp na daan na boo amee looy ubbi wutalug waawam la xaside gi sa ëpp kon nag pas-pas boobu yàlla nu sëñ ko defee sëñ noonu nu mën a daw dem ci yitte yooyu ak yeneen béréb yi mbokk yi kon lii mooy leen dina jëlale woon fii ci ngaay seen mbokk Modou Makhtar Diop Benno FM Touba ndax lii sant yàlla la ci nun bu baax a baax ñun liggéey sëñ Tuubaa yi mooy suñu moom la ñu bëgg te it bu doon ne dañuy woote xeex ñu ne ngi xeex ngir sëñ Tuubaa li sëñ Muntaxa waxoon rek nee naa la watoon guerre xam naa dinaa daan ñu bari wala ci daal ci la nag mooy pas-pas jooju sëñ Muntaxa waxoon te pas-pas du ay caaxaan mbokk yi coow li li muy bari bari damay wax ne murit day déjjéer lépp murit day déjjéer lépp Cheikh Abdou xam ne ku la dàq juutal lu mu for sànni boo gisee kuy wax ci sëñ Tuubaa yow kontaan na kuy wax leneen kontaan na ndax wajal ci koy dal lu muy doog te fi ne li gën a mooy bari na kuy wax nii yu bari ay ragal man xam naa ci dara ndax man dama ne leen ab internet lu ma ci saaga waaye dama lay woo koo mos a dégg ñu ne woo xam na ne woo loolu nag. buñ ci boolee di jëfal sëñ Tuubaa ak pas-pas bu dëgër pour mu bëgg a yegg danañ ko yegg. sëñ Gana. waaw lii jigéen ñee ko. waaw joxal Baye Mouhamadou Mamadou damaa bëgg nga dogul ma dogul sama bokk yee mu ji mu jigéen ñi. macha allah dañu fu ñu dem ñoo fa man. ñoo koy jëkk ñoo fa man. ma nekk Baye Fallou maam jaar sëñ Maxtaar mais bi ma di taalibe bi am wér di yaram nag bëgg mu teggi ko ci kaw suuf ta ñëpp di wér te wér le te wér te wér le ndax Baye Fall maam jaara laa fa ma ah, soxna Fall ma doom lay ngay asal maam jaar sëñ Basiru Jóob yaakaar sëñ Basiru Baye Fall maam jaar rek la